sëriñ bi dañu tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene bokk yi gannaaw bu ñu sante suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu suñu bopp ñu gën a fab tànk teg ko ci taqwallah sunu boroom mi ngi ñuy wax ne kii teg tànkam ci taqwallah mooy jëfe ndigal yi ak bàyyi tere yi te bàyyi tere yi lay tax mu wér yàlla xam na ko waaye nit ñi mën nañ koo xam na ko nit ñi xame mooy du romb mukk lu nara jagadi tam man ca dara fattaqullaha wa aslihu daata baynikum wa atiu llaha wa rasulahu in kuntum muminin dellu wax ne ñi gëm yàlla ñépp ay bokk lañ waaye waay kenn ku nekk na solu dàllam fas yéene lum romb mu jag ci diggante mbokk gi innama almuminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqu llaha laallakum turhamuun dellu wax ne wàññiwut dara diggante boo xam ne ma ngay tàmbalee ñagas tàmbalee karaj ku ko yëg buñ ko ko waxee ak buñ ko ko waxut buñ ko ca booleeg buñ ko ca boolewut na xam la leen boole na ci jóg dox lu ca man ci jagal mu def ko fala junaaha alayhima an yusliha baynahuma sulha wa sulhu xayr ci loolu nag ci la ñuy dégg ne lislaam shariatul islaamiya euh, ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàll na ci ku gëm yàlla ji nga xam ne moo yónni woon yonent yi ba ci rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sayidina muhammad mu xam ne noppi ci lu nara jagadi ku ko def am na lu koy xaar benn ñim ko séqal di ay mbokki jaamam saa bu ñu xamee ne mën na ca dara te doxu ca dara duñ ko fàtte duñ ko fàtte mukk waaye waxuñu yàlla da ko digal jaar digle jaare ko ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaye daf caa may sax dafa may ki nga xam ne day jóg di defara ji lu mu xaraamal ñi ci des loolu mooy wax lu dul dëgg ngir defar wax lu dul dëgg dañ koo tere waaye ci defare dong lañ maye kuy wax lu dul noona ngir bëgg lu jag su ñëwee ci kii ne ko diw da ngeen waxtaan agul rek waaye lim ma wax ci yow jar na ma ànd ak yow dem nga jox ko loxo bu dee ci niñ tëralee suñ doxalinu réew ka féete ndaw lay waxal su dee ka féete mag it su demee da ko naan la ma dégg mu wax ko ci yow day da ngeen a gisee gudd rek waaye lam ëmb wuute nag li nga jàpp damaa bëgg nga xëy xëy rek nga dër këram wala nga woolu ko soo ko woolu du sañ bañ a ñëw te moo ne kenn waxula dara foofu dong lañ mayee ko wax lu dul noona te fekk day defar yonent bi sallallahu alayhi wa ne ndax du ngeen ñëw ma xabaar leen ma wax leen moom du waxe ba kanam lu mu wax noonu la ma xabaar leen loo xam ne moo féete kaw ci nattukaay koor julli ak sarax saraxe koor gi ñuy wax nag mooy kooru ngàtt nga julli gi ñuy wax mooy naafila jàpp ba set jóg julli ñaari rakka wala nga wóor la amum njàpp rek te muy waxtu daga ne naay fa la nga jóg julli ñaari rakka ak saraxe ñu ne ko ah kay loolu kay bëgg nañ ko xam mu ne leen mooy defar ab diggante defar nag su amee yàq la jàkkaarloo nee na yàq ab diggante nii lañ set di def kawar moo ko raw nee na nag jubluwut kawar waaye pas-pasuk nit la yàq ab diggante bi keef ndànk-ndànk ba mu jeex tàkk yal nañu ci yàlla so diine nit ki yàqub diggante da koy wat ba mu jeex tàkk ci moom ni lañ set di wate kawar e, dellu wax ne defarub diggante ab fenkat faw ñu déglu ci ay waxam lu mën a mën a mën a fen su fekkee daa jóg tey jii di wax lu baax mooy li ma wax léegi rek dem ca kee wax ko lu rafet ba mu nangu giseek ak moroomam dem ca kee wax ko ba mu nangu gisee ak moroomam nee na boolewu ko ca donte ab fenkat day yàqu diggante waaye foofu moom faw ñu may ko fa ruxsa mooy paso bu mu fene ndax diggante ba jag xool leen fen ni mu toll sëñ bi bind na ci ab téeréem ne yonente bee ko jàngale ne ku xëy fen fen wa day yëngal aras bu waa aras ne lu xew mu ne maay mooy fenu diw fenu diw bi moo yëngal aras malaayika yépp ne yàlla nañu yàlla musal ci diw aras nem dale lu ko yëngalee nii yàlla nañu ci yàlla musal nee na ba ba muy tuub saa su ne danañ ko bindal ñaawteef bu toll ne jabalu oxor jabalu oxor nga dem ma Madina soo jëmee bëj gànnaar mbedd moo jaar seen ko mbedd moo jaar da nga seen jabalu oxor boo jubloo gànnaar kon defar ab diggante ci lañ maye moom dong ku wax lu dul noonu ak xanaa ab xare am ca ay jamono nit tase ak yow ne la waa jullit moom seen xare bi xare mooy ab armée nu mu toll tase woo fekk ñan ah kay ñan la ay jullit lañ may niru de bari nañoo nga ne yii ba ba ngeen wàññi ko kay ñooñu kay ku dajeeg ñoom musiba am te ñaar la wala ñett rek mën naa am ak defar ab diggante gannaaw nag. loolu ci lañ jublu mën na ma bàyyi ci des ba beneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jugal na boppam defara ji xëccoo bu amoon ci waa Quba moom ci boppam yablewut yónneewut wootewut bu doon suñ jamono dinaan wootewut téléphone daa jóg ànd ak saxaaba yi ne leen jóg leen ñu dem ba mu demee dana leen àttewuma damay defare àtte mooy loo jotee kii mu wax a wax a wax ba ne xaaw te wolof day wax ne nii laa defoon dana am lu mu yokk da yokku sàgganu kuy atte faw nga dégg loo xam ne mën nga ko ñakk dikk dikk waaye dana leen atte si wuma leen dama leen di defara si nañ xam ne li ñu fi dajale moom fitna am rek bëgg a tàggoo am ab diggante bëgg a ñagas moo ma tax a dikk wax la muy wax bañ joxante loxo mu jeex la tax yonent bi jóg nag ak tànkam te ku mu yabaloon mu doy kon lu rëy ngi noonu ci diggante jaam muy defare ab diggante moo ne mas naa jógit euh, xew-xew bu amoon ci bani awf mu ne fa di defare di defare bañ soññi ko soññaat ko ndax nodd nañ noddaat noddaat mu soog ne kon boog ay ci leen ñu julli ji ñëw leen yéen ñëpp ñu àndandoo dem dugg ca jàkk ji jullee benn yoon ba ñuy sàppe daa jël kii sësaliku moroomam jël kii sësaliku moroomam kenn ku nekk sëq sa moroom bañ ne asalaamaaleykum ku ne jox sa moroom loxo kon boog la tax yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam bañ noddu noddaat noddaat musa ko jóg lu ñor xom ma nga noonu kon ñu xam ne ku bëgg a defar doo taxaw taxawaayab attekat attekat mooy loo jotee kii mu wax ba ne xaaw loo jotee kii mu wax ba ne xaaw mu daal di ne kiyee tooñ képp ko xam ne amoo ka amoo sañ-sañu ne kii moo tooñ waroo àtte da ngaa war di defar euh, <clears throat> junj naa ko kuy jóg di defara ji na yàlla rek tax su yàlla taxee day yomb ci moom lool in yurida islaahan yuwaffiqi llaahu baynahuma ci diggante ab sëy la doon wax waaye ab diggante rek bu ne mën na koo àtte ñu ñu ko séqoon ba yàgg mu bëgg a tasaaroo ñu ne rek mën nañ caa dugg na yàlla tax te na fexe ba bu kenn wuñ wuññi sa awray moroom bu kenn wax ci sa moroom lu dul noona bu leen dajalee na fexe ba bu kenn wax ci sa moroom lu mu wër ta wax loola mooy bu mu leen laaj xam na leen fa dajale ak la ko tax a jóg moom bu fekkee moo jóg dem jàmm xewul rek nañ xool la ca kanam te bañ a geesu la ca gannaaw waaye it suñ demee ba nga xam ne déggoo nañ kenn ku nekk mu wax la li la war ci sa moroom àq ji dox sa diggante sa moroom ba ëllëg gi si biir ak du mën a am waaye kenn ku nekk bu fekkee daay wéetoon ak yow lu waaye waxoon ci moroomam ndax mer bu ne mukk yaa ma ne woon ca biir nee ba nàngam yow mii nga tegal ma ca nàngam kon boog def leen nàngam déedéet nii laa defoon day tax ab sàgganu gën a yaatu moo tax sëriñ bi bi muy jàngale xaddis boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nee na fen li muy rëy rëy maye nañ ko fen defar ab diggante def koo way ci ay bayit juróom-benn bayit mu yomba mokkal lool nga xam ne saabu mbir mu ne amati ñëwatee rek mbir mu ne amee mbir mu amee noonu saabu amatee kenn ku nekk xam ca fa muy teg tànkam te nag bu ci jógee mu baña a tàggatu ci fen nag di dem lakinahu li xamsati al aqsaami qassamahu baadu dawi al fa qaala jaamian lahu fi adadi sittati abyaatin bi nazmin jayyidi moom lay wax moom moo ko dajale boole ko way way ko waye mooy mandubuhu lil xarbi wal irhaabi tudd naa ko li kaafirin yuxdau bil kidda bil kiddaabi waajibuhu li fakki maali lmuslimi wa maali nafsihi xaqiqan fi ddami mubaaxuhu yaa saaxili l islaaxi bayna alwara maa fiihi min junaaxi ci laa toll nii nee na fen léeg la ñu sopp ko lool muy tase woog ñan na axakay ah ñaata lañ mu ni su ta xam seenub lim loo leen teg ay jullit lañ kay moom wóor na ma ndax gis naa ñuy jullit dégg naa ñu tudd la ñu tudd yàlla bee boo ngeen daw man do buulil xarb wala irhab fi nga xam ne moom fenn waru gar la fa mooy kuñ nara jël lam yor ray ko mu ne moomu ko ñu ne ko sawaay ndax moo ko moom nga ne moomu ko de te xamoo waa ji xamoo xamoo leen ñooy wala ñu bëgg a ray nit ki mu ne moomu ko moom te fekk moo ko moom foofu foofu moom fenn dafa war ndax sowe bakkan gis ngeen bakkan ni mu toll ni mu foore fen li muy rëy rëy day taxaw jël atte atte ko bu fekkee bakkan daa waralo bakkan lu rëy la yàlla rek moo ko sañee jël xanaa boog mu ne jël leen bakkanu kee fi mu dagane nag nga xam ne ku ko def baax na ku ko defut baax na waaye ku ko def moo gën mooy defar ab diggante boo xam ne waxuñu bàyyi ba mu xottiku waaye bu nee taree tuuti nga gaar ko gaaw mu baaxuhu yaa saaxilil islaahi bayna al wara ma fihi min junaahi kon boog nañ fexe ba luy yàqu yàlla buñ ko fekke ya topp ci bëy de mooy makruhu li zawjatin tatiba li nafsiha wa libnihi tahbiba حرمه هو الذي لغير ما manfaatin chariyatin qad ulima bi xaram dëgg dëgg laa wax xaram dëgg boole ca mooy fen woo xam ne amulul diina njariñ amulul jullit yi njariñ loolu moom mooy wuréy way may wax nga xam ne moom dara xasawu ca xaqiqatul kadibi ixbaaruka ma lam yaku thaabitan bi qawli ulama daf koy wax rek ngir njariñul boppam kese waaye nit ñi duñ ko jariñoo réew mi di ko jariñoo sakkantum ak dina di ko jariñoo yàlla njal musa ci booba wa qaala qawmun kulluhu qabiixu wa huwa fi madhabina saxiixu ñi xam fan dëgg dëgg sax jàmbat ko nee nañ roxas yi ñu génn yépp teewul nag wenn baaxu ca ndax wu ci ne jëfandikoo mu dox attan na ko def euh, argent de poche waaye bi nga xam ne dañ ko sib te ñépp di ko def daanaka rek sib nag bokk yi mi ngi mel ne ku sol lu ñu suub cuub gu rafet ñu wis ca acide wala eau de javel buñ ko ci soog a wis du ko yëg du am solo waaye boo doxee tuuti dana ko tàmbalee feeñ ku tënku ci lu sib te koo bàyyi léegi tamit dugg ci lu xaram ndax ci daayira xaram la nekk tere la mooy ni ñu naxe seenu njaboot di nax soxnaam naa ko danaa la may kaaba gaag danaa la yóbbu fii danaa la yóbbu faa danaa la yóbbu faa dara du ci fasu ci yéene dara di nax doomam naa ko boo defee nanga muus maa ngi ñëw gaynde gaa ngi ñëw day mujj xam ne muus ñëw gaynde ko ñëw kooku day mujj tàmm fen ci sew sew day mujj sax defee ne moom di ko nax ci lii nga ñëw laa nga ñëw wala danaa la indil nangam te du ko indil daa baax kon daal defaru diggante dong dong dong dong ak yéen ci bokkam yi ma tudd wala yatt yi ma tudd fa lañ mayee kuy